yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñeent fukkeelu njàngale mi ak ñaar yéesu waxtaan na ak nikodem nanu bamtu nettali yi weesu benn lan la farisen yi ak nit ñi gëmoon ne moo leen di yóbbu ajana gëmoon nañu ne seen jëf ak topp ndigal yi moo leen di yóbbu ajana gëmoon nañu itam ne seen barke maam Ibrahima dina leen yóbbu ajana ñaar lan la yonent yàlla esaay yi wax ci mbiri nit ñi mel ni pharisiens yi esaay yi nee na dañuy wax lu baax ci mbirum yàlla mu yem ci seen gémmiñ waaye ci seen biir xol gëmuñu kàddug yàlla toppuñu yàlla te defuñu ko ci seen xol ñett ndax pharisiens yi waroon nañu yokk seeni santaaney bopp ci ndigali yàlla yi déedéet kenn warul yokk lenn ci kàddug yàlla ñeent ndax jàpp walla lekk lu dagan dina tax ba yàlla nangunu ci nguuram déedéet li ci sunu xol moo am solo war nañu am xol bu set juróom nit ñi ñu ngi attente ci seen jëfi biti waaye yàlla moom naka lay attee yàlla ci xol lay xool mbind mu sell mi nee na ci yowanna saar ñett aaya benn ba aaya juróom benn aaya fukk ak ba aaya fukk juróom benn amoon na ca farisen ya nit ku ñu naan nikodem te mu bokk ca kilifay yawut ya genn guddi mu ñëw ca yéesu ne ko kilifa gi xam nañu ne yàlla yónni ngir nga jàngal nu ndaxte kenn mënula la def firnde yi ngay wone te yàlla àndul moom yéesu tontu ko ne ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax képp ku judduwaatul doo mën a seede nguuru yàlla ni ko dem ne ko nit ku xas ba màggat lan lay mën a judduwaate ndax day dellu ci biiru yaayam ngir judduwaat yéesu tontu ko ne ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax ku judduwul ci ndox ak ci xelum yàlla doo mën a bokk ci nguuru yàlla lu judd ci nit nit la waaye lu judd ci xelum yàlla xel la te itam na Musaa sampe woon ab bant ca diggu màndig ma takk ca jaan ja mu defare woon xànjar faaw ñu yëkkatee noonu doomu nit ki ngir képp ku gëm am ci moom dund gu jeex ndaxte yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doomam ji mu am képp ngir képp ku ko gëm am dund gu dul jeex te doo sànku mukk bu leen fàtte ràññee melukaani yàlla yi ci nettali bi yeesu waxtaan na ak nikodem nettali bi mu ngi aju ci waxtaanu yéesu ak nikodem ci nettali bi weesu gis nañu ne farisiyen yu bare gëmuñu ne yàlla moo yónni yéesu tey dinañu jàng ci mbirum ab pharisien bu gëm ne yàlla moo yónni yéesu mu ngi tuddoon nikodem benn guddi nikodem dafa dem seeti yéesu mu ne yéesu xam nañu ne yàlla moo la yónni ngir nga jàngal nu say ñoo ko firndeel yeesu tontu ko ne ci dëgg-dëgg maa ngi la wax képp ku judduwaatul doo mën a seede nguuru yàlla ni ko dem laaj ko naka la nit di judduwaate kenn mënul dellu ci sa biiru ndey Yeesu firil ko ne nit ki dafa war a juddu ci ndox ba noppi judduwaat ci xelum yàlla yéesu ne ko lu juddoo ci nit nit la waaye lu juddoo ci xelum yàlla xel la mu ne itam xel mu sell mi niki ngelaw li la mën nga koo dégg waaye xamuloo fan la jóge ak fan lay dem waaye ni ko dem déggul wax ji yéesu ne ko na musa sampe woon ab bant te diggu màndig ma takk ci jaan ja mu defare woon xànjar faw ñu yëkkatee noonu doomu nit ki ngir képp ku ko gëm am ci moom dund gudul jeex yéesu ci bi yawut yi nekk ci màndig mi lay wax noonu nettali bi mu ngi nekk ci tawret bi te màndig ma waa Israël xultu nañu jëmale ko ci yàlla te loolu bàkkaar la noonu yàlla indi ay jaan ñu màtt leen am ñu dee ci ñoom yàlla ne musa mu defar jenn jaanu xànjar te wekk ko ci ab bant ñi xooloon jaanu xànjar ji ñoom muccoon nañu yeesu wey ci waxam ne ndaxte yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doomam ji am kepp ngir képp ku ko gëm am dund gu dul jeex te doo sànku mukk yàlla yónniwul doomam ci àddina ngir mu daan nit ñi waaye ngir musal leen képp ku ko gëm deesu la daan waaye ku ko gëmul daan nañu la ba noppi ndaxte gëmuloo ci turu doom ji yàlla am képp ci nii la àtte bi amee leer gi ñëw na ci àddina waaye nit ñi lëndëm gi lañu taamu ndax seeni jëf yu bon képp kuy def lu bon day bañ leer gi te du ci ñëw ndax ragal ay jëfam di feeñ bëccëgu ndara kàmm waaye ku def lu jub day ñëw ci leer gi ngir ñu xam ne def na ay jëfam ci kanamu yàlla fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn kan moo doon Nikodem ab yawut la woon pharisien la woon itam ñaar kan la Nikodem gëmoon ne moo yéesu gëmoon na ne yeesu yàllaa ko yónni mu jàngal nit ñi ndax kéemaan yi yéesu defoon ñett lan la yéesu wax ni ko dem mu def ko ngir mën a gis nguuru yàlla dafa war a judduwaat ñeent lan la wax yéesu tekki bi mu nee war nañu judduwaat yéesu dafa bëgg a wax ne waa àddina si ci ndox lañu juddoo bu ñuy juddu dafay fekk sunu diggante ak yàlla amul kóllëre war nañu judduwaat ci sunu xel jaare ko ci xel mu sell mi dund gu bees googu mu ngi jóge ci dégg ak xam ak gëm kàddug yàlla bu nit ki judduwaatee xel mu sell mi mooy dugg ci xolam ngir nit ki xam yàlla am cofeel ci moom te déggal ko su ko defee dinañu fasaat kolëre ak yàlla juróom lan la yeesu bëgg a wax bi mu ne képp ku ko gëm di am dund gu dul jeex yéesu nee na foofu donte sunu yaram dee na sunu xel dina dund ak yàlla ba faaw juróom-benn lu tax nun itam nu mel ni waa Israël meloon ca màndiŋ ma nun itam ay bàkkaarkat lañu te mënunoo musal sunu bopp juróom-ñaar naka la jaanu xanjar ja musaa lonkoon te bant ba di nu fàttalee yeesu képp ku xooloon jaan ja muccoon na képp ku xool yeesu ni musal katam dina mucc ci seytaane ci bàkkaar ak ci dee juróom-ñett lu tax yàlla yónni yeesu ci àddina yàlla yónni na yeesu ci àddina ngir musal nit ñi ci mbugal ndax sunuy bàkkaar te jox ñu dund gudul jeex juróom-ñeent ñan lañu dul mbugal ñi gëm yeesu fukk ñan lañuy mbugal ñi gëmul yeesu doomu yàlla ji fukk benn lu sax yenn saa nit ñi duñu dégg kàddug yàlla ndaxte sopp nañu seeni jëfi bàkkaarkat sopp nañu di topp seen bakkan am nañu foog ne dañoo sopp mbind mu sell mi maanaam biibal bi am nañu ragal itam ne seeni mbokk ak seeni xarit dinañu leen bàyyi yan melukaani yàlla ñoo feeñ ci nettali bi te naka lañu ci feeñe yàlla mooy borom doole yàlla musal na waa Israyil ca màndig ma ca jaan ya yàlla mu ngi musal ci turu yéesu yàlla bëggul bàkkaar yeesu wax na dem ne nit ñi teqalikoo nañu ak yàlla seytaane moo leen yilif war nañu judduwaat ci xelum yàlla war nañu xam yàlla ni ko aadam awa xame woon ci toolu àjjana laata ñuy bàkkaar gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla waa israyil mënuñu woon musal seen bopp ca màndig ma waaye yàlla musal na leen yàlla yónni na yeesu ngir mu musal nu ci mbugal mi ñu yelloo ndax sunuy bàkkaar nun itam danoo mel ni waa Israël ca màndig ma mënuñu def dara ba mucc ci sunuy bàkkaar yàlla dafa jub yàlla yónni na leer gi ci àddina ngir nit ñi gis yoon yu bon yi ñu nekk ay nit nanguwuñu leer gi ndax bëgg a wéy ci seeni jëf yu bon waaye am nañu nangu leer gi nangu ne mooy yoonu dëgg gi beneen yoon dinañ waxtaan ci ni ndamu yéesu jole